asalaamaaleykum chers internautes Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu taam du suivre suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te leen di ñaanal ngeen dal ak jàmm suba nekk bis boo xamante ne sénégalais yëpp moom la ñuy xaar ginnaaw bi nga xamee ne kii di président Bassirou Diomaye Faye defoon na fi ci conseil ministre bale passé wax ne à partir dinañ fexe ut loo xamante ne dinañ ko wàññi lii nga xamante ne moom mooy vie bu cher bi sénégalais yi di dund suba nag mu nekk bis boo xamante ne ñëpp moom la ñuy xaar Walf Quotidien di ñu ci ñëwal plan de baisse des prix des denrée fixé au quinze mai test majeur suba lañ koy xaar ci li nga xamante loolu la diggee woon ki nga xamante moom mooy témoin ñëw di ko feelu baisse des prix des denrées le président Bassirou Diomaye Faye peut réussir son pari maanaam li nga xamante moom la digle woon mu nekk loo xamante ne ko yitteloon mu nekk loo xamante tamit sénégalais yi la gën a yitteel ñuy laajte ndax pari boobu dina ko réussir wala déet ki nga xamante moom mooy Momar Ndaw nekk président ASFOSEN

l'observateur est la seule vérité du ministre et les nouvelles révélations sur la dette di ñu xamal ñooy producteurs yi ba léegi ñu ngay way di wax noppeeguñu ki nga xamante moom mooy le grand panel di ci ñëwaat retard sur le de la dette semencière le ministre rétablit la vérité maanaam li nga xamante moom la l'observateur bindoon ak li nga xamante moom mooy mooy dëgg minutes pour lire l'essentiel di ñu ñëwal ci li nga xamante moom mooy coowal Prodac ba di ñu wax ne ce n'a jamais été dit mu ñuy xamal ne ca Prodac am na ab coow loo xamante ne cent milliards lañ koy waxee remboursable sur trente ans financement boo xamante ne ñii di coréens yi ñoo ko defoon coow li nga xamante ne nag Mame Mbaye Niang ak kii di Amadou Ba moo waral ba loolu kenn waxatu ci oublier les vingt neuf milliards de carnage financier porte sur un autre financement de quarante six milliards pour dix DAC jamais réalisé Farba mi nga xamante ne moom tamit dafa bëggoon son DAC comme niñ koy waxee Jean Pierre Senghor ne ko mukk du ci dal ñu ñuy xamal tamit ba léegi ne ci coow loolu am na as ndaw soo xamante ne bokkoon na fa di fa jaabante di fa jaabante ba mujj ab ministre takk ko kon nag loolu nga xamante ne moo xew Prodac ba léegi am na ci loo xamante ne sénégalais yi xamaguñ ko ñuy ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy bés bi le jour di ñu xamal la parole au chef de la division pêche artisanale kii di Ibrahima Esson Lo de désolation maanaam Ibrahima ma nga xamante ne ñu ngi ko doon tuumal di wax ne dafa absenté te joxewul benn justificatif pendant deux ans ñu koy fay salaire Ibrahima moomu tey moo génn di wax ne moom da xaw tuuti ñàkk ay bëtam nee na j'étais presque aveugle j'ai subi deux opérations qui m'ont coûté environ dix-sept millions j'ai supporté mes frais médicaux très onéreux en tant que fonctionnaire te mu doon koo jël en charge ci kat yoo nga xamante ne maanaam ñeent ci juróom yu nekk mi ngi jël li nga xamante ne moom mooy activité mi ngi ko commencé waat en deux mille vingt deux waaye nag ca juillet ba mais pas comme ñi nga xamante ne noonu lañ ko waxee ca décembre ba di xamal ne tamit li nga xamante ne moom mooy mission d'audit bi taxul nag mu am lii di droit de réponse dem ba ba léegi servirul ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooñu doon def investigation yooyee ci noonu la ñëwee ci ki nga xamante moom mooy tribune ginnaaw ba fan yee passé ñu ne ñu ne ay intoxication lañ kii di tribune ñëw tey di wax ne la souffrance des sénégalais se poursuit les boulangers menacent d'augmenter le prix du pain à cause de la hausse du prix de woyofal ñu ñuy xamal ki nga xamante moom mooy Sénélec dafa yokk li nga xamante moom mooy courant a nemmeeku loolu ñu leen di ne consommation ku ko daan def tey jii da ngay jëndaat li nga xamante ne moom mooy double bi te ñuy wax ne tàngaay bi moom moo waral loolu waaye ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy boulanger yi nanguwuñu loolu ndax nee li ñuy utiliser matériel yi ñuy utiliser seddaay moom la ñuy tàngaay kon ñoom loolu nga xamante ne waa Sénégal loolu la ñuy wax ñoom d'accord ko ki nga xamante ne moom mooy Amadou Gaye moo ko doon wax a a aéroport Blaise Diagne maanaam avion ba nga xamante dafa bokk ca compagnie Transair di avion HC 301 bi nga xamante ne dafa naroon a tàkk def jéye ju mag a mag a mag yàlla def ci li nga xamante ne moom mooy jàmm ñu titre découverte troublante di ñu xamal ne ki nga xamante ne moom mooy avion boobu de Transair moom ko ñu jox leen li nga xam ne moom mooy permis d'exploitation aérienne boobu si ñetti weer la toll ñetti weer ki nga xamante ne moom moo waroon a surveiller loolu mbir nga xam ne balaa ñoo jox benn autorisation benn avion dañ laa war a saytu bu baax a baax na mën ngaa daw wala war ngaa daw ne moom mooy Farba Diouf moom la ñu joxoon liggéey boobu waaye deful la mu la ko war ñu ciy sampub laaj lan moo wundu autorisation boobu ci vérification yooyu Cour des comptes di ci des ba léegi ki nga xamante moom mooy yor yor di ñu ci ñëwal di ñu xamal ne fële sa sali porte daal rapport Cour des comptes le mal gouvernance du maire Ousmane Gueye épinglé di ñu xamal ne en kii di maire ba ab dépense yu jéggi dayo la doon def en cinq ans de gasoil valeur ba nga deux cent vingt et un millions neuf cent quatre vingt treize mille six cent quatre vingt deux mille douze lu ëpp vingt deux millions deux mille treize lu ëpp trente six millions maanaam daa mel ni kooku nga xamante ne moom mooy Ousmane Gueye la ëpp ca budget mairie boobu ca Pasali Portudal daal gasoil la ko jëndee gannaaw ba ñu jógee sa Sali daal dañu ñëw fi nga xamante ne moom mooy les échos les échos di ñëwal ci benn magistrat ba nga xamante ne dafa nekk à la retraite di ñu wax ne la magistrate à la retraite père millions et boobu daal maanaam alal jooju mu yoroon da koo dénkoon ki nga xamante ne moom mooy doomu xaritam waaye ginnaaw ba ñu taxawee ca ginnaaw yoon dañoo wax ne kii di partie civile bi dafa wax ne nañ ko fay millions maanaam dédommagement ak li nga xamante moom mooy intérêt waaye ndaw soosu dafa weddi lépp loo xamante ne bi wax na ko ko nee ay tuuma la ci noonu la ñëwee ci point acte mu ñuy xamal ne Diomaye tient son et finance maanaam ñi nga xamante ne ñoom la taamu wóolu leen pour ñu mun a doxal li nga xamante moom mooy affaire maanaam rapport yi nga xamante ne cour des comptes IGE ak li nga xamante moom mooy OFNAC publié nañ ko ci noonu la ñëwee ci ki nga xamante moom mooy Sud Quotidien mu ñuy ñëwal ci une bonne nouvelle pour les usagers à de Guédiawaye et de Petersen mise en service du BRT ce mercredi le grand départ enfin mu nekk loo xamante ne essayage essayage ba léegi commencé daw ki nga xamante moom mooy gouverneur démb addu ca ak ki nga xamante moom mooy euh, directeur général de CETUD moom tamit wax ci di wax ne sur vingt trois stations ñoo ci fonctionnel di boobee noonu nag c'est entre quatre cent ba am ci ñoo xamante gouvernement bi dina leen subventionné maanaam entre ba la ñooñu noonu seen ticket di jar waaye nag ki nga xamante moom mooy état moom moo koy définir ñuy ñaax nag ñeneen ñi ñu moytu ay accident yi nga xamante ne moom lañ gën a ne moom mooy tribune ci Nord Foire mu doon accident bu métti ñuy interpellé ki nga xamante moom mooy Baptiste ak ki nga xamante moom mooy El Malick di samp ab laaj ndax dañoo mënalul dara conducteur yi maanaam chauffeur yi nga xamante ab réewande ak irresponsabilité la ñuy jaay ci li nga xamante moom mooy talibé ba muy jur jéyee yu ñuy ñaanal ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan yàlla na leen yàlla xaar ja alja ci noonu lañ leen di tàggoo yéen ñi safoo Sénégo média di leen wax ne à la présentation Fambaye Ndiaye Badiane Abdou Khadre Diouf le grand technicien jërëjëf ñu yendoog jàmm